Wali mana mikir gini? Auf die Lohn? Die Lohn. Okay, prima. Dafa tombe lo. Ci anel. Ma yaa ngi dem. Ay ñu ci arrêté magal. jógee suñu doxal ci kan wër ma doxal. ak suñu gànnaaw. jógee si ndam la ñu ñëwoon di ak si ziar. bu ñu jógee si mu daara la ñu mën a jógee si kaw xam-xam yi ak taar bu nekk. waaye nee nañ la ziar bu baax a baax ndax di sa taxawaay ci yoon bi liggéey bu rafet bi jël mën a ko demal ko dëkk bi nekk aussi ko ziar di sàppoon ñaan bu baax a baax nga xam ne ndaw la yëpp ci réew mi am nañ benn yaakaar àndoon ak ñoom ñu doon ñoom ñu ànd ak ñoom dëkk njaboot ñu leen ko doon dénkaat di sàkk ci ñaan baax a baax tey am nañ ci moom yaakaar moom yaakaar moom moo nekk ñu leen yaakaar moom ñu leen gën a dénkaat moom ci wàllu ñaan di leen ndokkee ci bis bi nga xam ne kenn xam ne lépp ñun ñëpp xam ne ñu sëñ Tuubaa def kenn dégg ko ci tey jii bu fekkente ni ñoo ko jaral ba ñu jóge jóge Dakar ñu déglu gis suñu suñu dalal ko ñaan ko mën a yow dénkaat la boppam ndokkeel la bu baax a baax loolu moo ci yitte di rafetlu baax a baax ci lépp ran yëpp asalaamaaleykum Mbacke ñu ngi lay siyaar bu baax da nga xam ni tey jii yaa yor kàddu Sëriñ Tuubaa ju baax ñu ñu àndal le président Ousmane Sonko tey jii mu jóge woon Dakar ni ko suñu Cheikh waxee ñëw si say mag ñëw si say xarit ñëw si say soppe ñëw si dëkku maam bii nga xam ne nii moo wax ni juróom-ñett fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sax saa yi ñëwatee nga doon mbégte mbindeef yëpp fépp waaye nekk dañu sant nañu yàlla ci sa bopp loolu nag Mbàkke